sañse kat mooy ngénte mais boo sañsewul da ngay jël ndaat de waaw loolu la. yow de ah, bëgguma ko de. man daal bu ma jëlul benn naa jël deux rek. ayca <laughs> sama gars yi ni ma leen ko waxee ah mbokk yu internet yi ba tey xew daaro wax daaro nag wax bàjjen ndax euh, ku seetaan kooru bitiw di nga xam ne bàjjen moo ci yaayam nekk ci lépp yàlla dogal mu am tout tànk mu del siwaat taxawu ko comme ni koy joué rek ci film bi rolu yaay la del siwaat ak moom bàjjen nuyu naa la waaw ngi lay fay di la gërëm di la sant di la ñaanal liggéey bi yàlla barkeel ko yaax ñi ngeen àndal ñëpp waaw di nuyu nag mbokku internet yi danga ne da ku ne daaro ne bàjjen mais daaro ak bàjjen yëpp yàlla moo leen boole jaarale ko ci loxo lëz lëz moo tax daaro bàjjen daje foofu la ko yàlla jaarale lëz nag di ku baax ku ñàkk ki ñaan di yaay ci daaro di eh, bàyyi ci daaro mais may yaay ci lëës di yaay ci daaro daaro nag def ma yaay def ma xarit def ma soppe def ma àndandoo daaro même bu ñu demee tournage ñoo bokk lal bi ñuy fanaan kon nag euh, kooku la may wax ne yaayam ëmb ko wasin ko rek la ma ëppale ci moom ñame na ma jege na waaw lu ma ko wax mu def lu ma ko digal mu def lu ma ko jox mu takk lu ma ko jox mu naan kon nag maax moom romb nañu tournage daal waaw ñu gis ne ci biir ëmb bi. te muy lu ñu tiitoon lool nag ndax lu musul am la. loolu moom. théâtre bu ne am na fi ñuy simile di jël ay leket di ko def même café avec def nañ ko leket lañ daan jël di ko def euh, lii saa lii saa mais biir dëggantaan man bu ma liiree commentaire sax ba ñu ne ëmb la wala du ëmb ma ne alhamdulilah comme nit ñaa ngi koy werante donc sant yàlla tiitoon nañ ci mais ñaan giñ ci ñaanoon suñu boroom nangul nañu ko ñuy ñaan rek yal na yàlla laf cat wéral ñu may ñu gudd fan may ko bébé bi jam na ko yaayam ak papam jariñoo waaw te ñun maam yi ñu ñu fekk ci lu baree baree bari. bàjjen yi bu amoon conseil bu muy jox doomam yi muy sëy surtout actrice comédienne yi ñu ma ko laajee sànq ndey kubba des fois deux mois trois mois la ñuy sëy ñu ne jeex na ak lu xaalis ba bari bari luñ ca dégg lu mën a xew. waa ñoo ñu ñu dañu seet si. ñooñu sëy ñu dañu seet si. ndax sëy si ak sëy si dafa wute. ndax am na ñoo xam ne dañu ñëw pour sëy si bu neexee dinañu toog bu naqadee dinañ toog te booy sëy bëgg faa toog nag dangay xaar lu ñëwagul boo xaaree lu ñëwagul dinga fa toog bu la fa yàlla mayee njaboot nga xaat ci njaboot gii nga uuf di ko nàmpal ëllëg mu teral la ndax teraanga jëkkër lu muy neex neex neex bu doom a ko dàq te loo muñal jëkkër rek doom mën na la kaa fajal ëllëg waaye nag loolu nag muñ la laaj ndax ki ngay uuf di ko nàmpal di xaar ëllëg mu teral la ah dafa yàgg de boo mu muñee nag loo fa xaarul nag du la fa mais boo sëyee loo xam ne lii xaaroo fa dara contrat la rek sëyu contrat man ni ma gisee xale yi sëyu contrat la ñuy sëy waaw mais nag du ñëpp nag déet du ñëpp nag am na ci ñoo xam ne bëgg nañoo sëy dañu gisagul ki leen di yàlla booleel mais bëgg nañoo sëy mais daal ñi fi nekk tey sëy dañu muñ te bañ a xaar ci seen jëkkër dara ñun ta ba ñuy buñ ñu joxul dépense keroog la ñu gën a togg lu neex te dañ koy am ci amin bu aw yoon nag du ñu caaxaani du ñu fawi te du ñu ñaani suñuy càmmiñ ñun rusoon nañu ñaani suñuy càmmiñ man de duma taxaw ñaan càmmiñ amul càmmiñ buy taxaw maa ngi koy wax nii ñu may dégg buy taxaw naan mës naa nekk sama néegu sëy di ko ñaan dama ko rus dama ko rus man lu ma ñaqalul sam bopp rek jëlew ma ko sam poche yu jëkkër doyow ma ko dara te li ma sama jëkkër di jox loolu laay booleeg la ma am ñu togg ko bokk ko lekk demuma si sëriñ sëriñ yaa ngi may dégg ku dégg ne dem naa si sëriñ yàqal la ma la defe duma dem si sëriñ la ma nar demee sëriñ mm. danaa ko jënd ganaar bu baax njoñal ko ko ñu toog lekk ko ma koy wax wax ju neex ñu den boo jegee sa jëkkër di ko wax wax ju neex mais sëy bi day neex lu ngeen jur mu barkeel man daal loolu laa ci gis man nag sama yëfu bopp laa ah. noonu laa ko gisee te noonu laay def boobu ba tey dara ñaawul te dara du ñaaw yàlla bu mu ñaaw kontaan na ci yàlla na yàlla kontaan ñu ngi waaw ah jéem jéem rek sañsakat mooy ngénte mais boo sañsawul da ngay jëndaat de waaw loolu la. ah bëgguma ko de. man daal bu ma jëlul naa jël deux rek. <laughs> waa kay yal na waaw. la nii ngeen. waaw xale bu baax. xale bu am jom. xale bu rafet xol xale bu généreuse. waaw tubaarkàlla li bàjjan Anta Fall wax rek. ndax boo gisee nit ba bëgg ko jikkoo ma tax. te ànd liggéey dafa metti liggéey bu mu mënti doon ci àdduna bi. moo xam ca marché ba moo xam ñay bongo moo xam sabar ya moo xam lu mënti doon ci àdduna daje liggéey dafa metti tem nga gis gis kanam wala nga gis jikko te jikko nag du du du nëbbu sooy dugg ci dara jikko day toog ca biti di la xaar dans vingt minutes dan <laughs> la boo gaawul ma ñëw de kon ñun ñëpp xamante nañu ku mës a bokk nit liggéey rek xamante nañu waaye moom mii di wax si daaro moom bàjjan Anta Fall lu mu am bu ko indee tournage du ko yóbbuwaat ñëpp ñun ñëpp lay may bu ñëwee tournage dañuy may kon bu gisee Daro Daro gis ko def ko yaay moom it mu bëgg Daro ca jikko ja la man nag Daro dama bokk ak moom ay tournage yoo xamante ni jiitu na loolu mais gis naa ni fa dëgg yàlla sunu ànd rafetoon na loolu moo wara lii yëpp man loo lu xew la gis nga ma ci parce que ni ma def la koo xamul na koy def nam ma def a tax moom laa koy wax toujours xam nga loolu dafa neex sant yàlla kon ay nit suñu àndee di liggéey nanu ko rafetal dafa am solo lool iñaan fànqul muur bur yàllay maye munu iñaane kii ba du am li mu war a am tey ba nga solo ba jóg yaa ngi ànd ak sa wërsëg yaa ngi ànd ak sa ñaanu waajur des fois da ngay xool nit rek nga xam ni kii mënu leen def ci kaw liggéeykaay nga teg ko ne mais daluñu ci daaro de moo waral tey ñëpp sot daluñ ci moom de ndax man de am naa fulla ak fayda goo xam ne noo ma def rek ma def la nag ma def waaye daaro nim nu defa tax chéri Maysa ba ñuy ànd ak moom booba Maysa takkagu ko de mu nekk xale bu ndaw nekk ci sunu biir bu ñëwee ñu di ko nax lu mu indi ñu denc sunu xaas moom mu jël xaasam dem ci ci ci biir Yoff Door yi jëndal ñu ay hamburger ne nu lekk leen sonn ngeen balaa añ bee ñëw ndax ci man dara ndax daaro kon xam nga ni loolu dara fay ko na ànd rafet na ko ñëpp xam ànd dafa war a rafet man de lii laa bëgg man Adja Fall dama bëgg ku may àndal dooma jéppi te su ma la defee lu la naqari wax ma ko nu waxtaane ko mu jeex li nu dal suñu digganteeg daaru nag mooy gor rek gisuñu di daw gisuñu ko di daw làquwuñu làquñu loolu rek moo am solo yal na ko yàlla defal jàmm mu dund ba doomam ji mu di ko yónni ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam man de boo kontaanee rek kontaan naa ndax bésu daara gi bëgguma ci dara lu sedd